asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Cheikh Abi Mbacke ak mbooleem njabootug sëriñ Touba sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Abi moo leen di yëgal fukk ak benneelu édition bisu xasaayit bi nga xamante ne bii baaxoo na ko ànd ak sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Soy di ko ànd itam ak mbooleem kuréeli kennal sëriñ Touba yi ak kuréel jaalibatul maraaxib ak mbooleem kuréelu xasida yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew mu war a nekk ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2019 ca Masaalikul Jinaan ci barab bi nga xam ne fa la ñu julee korité ak tabaski muy bis bu am solo boo xamante ne tedd ki di Serigne Touba Cheikhoul Khadim fas yéene koo liggéeyal ci xasida yi ba tax na Serigne baa ngi ciy woo mboolem jullit yi rawatina yoonu murit waaye ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi yëngatu njàngum durus wala rajas wala kuréel Serigne baa ngi leen di woo ci bis bi ñu koy amal fii ci Dakar ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier gannaaw bu 9h jotee ba timis Serigne bi di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn képp koo xamante ne bii liggéeyal Serigne Touba ñor na la Serigne baa ngi lay woo ci bi waaye képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa yi ñu leen di jox 77 632 39 55 wala

268 03 07 mbokk yi bis baa ngi noonu di bisu xasaay ñu jagleel ko Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Abdoulaye Mbacke moom Serigne Cheikh Abi di ci ànd ak Serigne Amsatou Mbacke ak mboolem kuréeli kennal Serigne Touba yi ak jaalibatul maraaxib waaye mboolem kuréelu xasida yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.